président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions. Le Conseil constitutionnel dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Monsieur le Président de la République, plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'audience est levée et nous sollicitons qu'il vous plaise permettre au Conseil de s'approcher de vous. L'audience est levée. Ovation pour euh, Bassiro Diomaye Faye. C'est fait. Bassirou Diomaye Diakhar Faye officiellement installé cinquième président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom mooy juróomeelu njiitu réew ci biir réew bu Sénégal conseil constitutionnel daal dina koy jébbal lenge yi Birahim Touré des moments encore une fois avec énormément d'émotion euh, yi ñuy gis nii euh, déjà naa dellu ci les propos de euh, Mamadou Badio Camara propos yu am importance. ci président bu conseil constitutionnel. fi ñu toll nii di dem di saafonte ak le président élu le président officiellement installé Bassirou Diomaye jaxaar fay ñoom ñëpp ku ci nekk di ñëw di ko euh, félicité di wan na nag li léegi fi ñu toll nii yaa jiite ñëpp sànq dañoo toogoon ñoom ñëpp a ñëw jóg taxaw ñëw nuyu ko wan ko ni sànq nekkoo goo ko woon léegi doon ko yaay président la république du Sénégal mu ñëw mu présenté ko ñi bokk ci conseil constitutionnel nga xamee ni ñoom ñoo validé candidature am ñi bokk ci conseil constitutionnel ñoo xamee ni ñoom ñoo validé victoire am ñi bokk ci conseil constitutionnel ñoo xamee ni tey ñoom ñoo ko jël teg ko nekk yooyu ay président réew mi loolu moom mooy cérémonie bi loolu la woon mooy comme li ma doon wax sànq ni conseil constitutionnel moo taxu dem ca CICAD tey conseil constitutionnel moom mooy Euh, joxe euh, lenge yi wane daal ni président de la république fal nañ la euh, kon doon nga ko gannaaw li moom bu war nañu ko defal li nga xam ni moom mooy tappal ko yi nga xame ni ay nataalu senegal la maanaam mu am ay. lu mel ni collier ak euh, lañ koy euh, yooyu nga xamee ni président bu ñëw dañ la koy euh, defal ñu war ko def fi ñu toll nii dañuy def la photo de famille entre le président euh, démocratiquement élu et installé le président basiru Diomaye Diakhar Faye et les membres du conseil constitutionnel euh, qui sont les sept sages ñu dend tamit ak boo xoolee fële tout à fait à l'extrême moom mooy jiital greffe moom moo doon ba ñuy def seen euh, euh, lim kan mooy dem ci élection yi bu ñuy def euh, parrainage yeeg yooyu moom moo yoroon mbir mi muy greffier yi huissier bi plutôt je veux dire huissier bi moom moo nekk fële tout à fait à gauche donc muy photo de famille boo xamee ni président bu bees bi day jàng nag ah, pour nit ñi xool nii parce que lii yëpp protocole moom moo ko wane protocole avant muy ñëw xamal nañ ko nii nga war a def fii ngay taxaw nii ngay doxee nii ngay kii léegi bu paree nag comme def na euh, les photo day dem après nag euh, permettre nit ñi saafonteeg moom gis nga le chef du protocole bu palais mu ngi koy chaque instant mu ngi koy wax président defel nii defel nii léegi day dem toogaat fi mu nekkoon fi mu toogoon nag mooy fi mu toogee jóg dem taxaw ci kanamu pupitre bi di pupitre présidence de la république euh, waat fa gannaaw gi dinañ ko defal ay photo muy photo officielle tamit gannaaw gi tamit dina dem ñi nga xam ne ñoom ñooy les les invités surtout les chefs d'État ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk dina ñëw tamit sargal ko ñëw kon euh, féliciter ko également euh, ci euh, taxawaay bu mu wala fal bi ñu ko fal ak li ñu ko teg tey en tant que président la République du Sénégal muy des images qui font le tour du monde je le disais tout à l'heure Euh, les images du président euh, nouvellement élu et installé officiellement en tant que chef d'État du Sénégal. On peut dire maintenant ce que je disais tout à l'heure. Dites maintenant, Son Excellence, Monsieur le Président, Bassirou Diomaye Diakhar fay puisque il est le président de la République su neexee suñu borom pour cinq ans. au moins muy le premier mandat. Euh, gannaaw gi nag après on verra mais pour le moment c'est le président de la République du Sénégal officiellement installé. et je pense que c'est une image qui fait le tour du monde euh, ndeysaan ndoy euh, bu présidence moom lépp lu jëm ci technicien la nekk présidence depuis jamonoy Ablaye Wade président bu jël micro moo la jox micro moom ndoy suñu doyen la nekkoon RTS donc ñu déglu ci maître de cérémonie bi moom muy wax ci peut-être la suite des des des événements parce que ci lañ ko war a nag teg tappal raay